ko jàng mu dafa rafetul parce que jàpp sa moroomu jullit wala sa mboroom nit sax nit rek nga koy jam ay paaka di ko di ko jam jam jam jam jam ba mu faatu loolu moo dafa rafetul en moom man moom lu ma jàpp ni mooy képp ku ray daan nan la rey parce que islam loolu la loolu la dëggal te fii loolu amul loolu lay bi du fi lii parce que da ngay da nit ki nga jóge fi ni wax ay kay dafa dof dafa lii man jàpp naa lu du affaire dof affaire soxla rek waaw loolu mooy rafetul ko te maa ngi koy ñaawlu trop wax dëgg yàlla Macky Sall il faut mu jug si Macky Sall si boppam il faut mu jug si xool lan nay def parce que sama gannaaw la rek te koo xam naa ko xale bu jigéen ma xam naa ko wax dëgg yàlla ñoo yëpp xam naa leen wax dëgg yàlla famille bu baax la mosuma leen xamal ay caaxaan wala affaire yu bon yooyu wala loolu wax dëgg yàlla sama dëkku noonu la sama gannaaw fii rek la dëkk waaye loolu moo nekk na loo xam ne dafa rafetul jàpp nit ki moom nga koy rey fekkee dem ne benn minute sa bàyyi ma ñoo ni tane parce que dem ba instant ngay téye sa morom nit nga xool lii nga xam ne nii sa moroom nit la nga koy ray nga koy nga ray ko pare nga nekk fii di wax ay kay dof man mënuma gëm loolu de ay kay dof doful de parce que kii dem di laaj xaalis wala di wot xaalis wala di ngoro bu dofoon xale bu jéewoon du ngoro moom doful waaw waaw ko feebar bi moom yàlla mooy wàcce ay balaam rek wante yàlla moom lu muy dogal moom kenn mun si dara wante affaire bi moom war nañu xoolaat jaamu yàlla bi daa war nañ ko yokk ñu xool li ñuy def parce que wax dëgg yàlla euh, am na benn kilifa bu ñu doon wax daal dinañ dem ba réew mi dañoo toll foo xam ne du doot nu xeexa guerre guerre fetal ay virus la ñuy xeexee te loolu est-ce que jar nu xoolaat ba xam loolu amu si. waaw comme ay comme mm, fetal dootu amati ay ay lii lay doon parce que affaire bi dafa doy waar trop ni mu ko gisee daal moom ni mu ko gëstoo gëstoo am na lu si laxasu daal lu si laxasu nag ay la du fii laa koy waxee nag waaw wante daal nañu ñaan yàlla rek yàlla musul si musul si waaw kër bu ne bu fekkee mun naa saraxe lu mel ni saabu parce que saabu day setal mu ni saabu nga nga nga saraxe ko ak galaas glace day seddal lépp day seddal lépp luy tàng da koy seddal ni saraxe ko daal bëgg mu ne def daal daal ni def ko kër bu ne daal. comme lu mu la ko waxee xam nga yàlla dafa am loo xam ne dama koo defal waaw ma nekk euh, xale parce que ñaar fukk ak juróom-benn la am te yàlla na bu mu commencé def ay ñaan 3 lay toll xaw ma 4 ans côté yooyu parce que jàppal naa si ay kilifa yoo xam ni. am na ay ministres yoo xam ne maa ngi jàppale parce que boo xoolee kër gi ma dëkk sax ñoom ñoo si def ba li mu toll ba mu toll fii yeneen kër yi may dem di ñaana nit ñi képp ku may ñaanal yàlla def loolu sotti waaw te képp ku may ñaanal yàlla def ma sotti parce que kooku maa ko ñaan ba président Macky Sall fal ko ministre man du ma wax tur wante moom xam na bu seetaanee dina xam ku may wax. waaw parce que ñun sutura la ñuy ñaanal parce que bu fekkoon du suturo di nga xam naa di fekk si kër gi ay béjjén nag ay yooyu wante man képp ku may ki may sëkkal ñi euh, booba euh, il faut mu sëkkal nit ki nga doog a xam man li may yëngu si lan la il faut ma am fu ma la yéegal parce que affaire bi sutura laa ko def mu ko wane télé wante jëfal naa see ay kilifa yu bëri ay ministres ay yooyu day borom daraja yoo xam ne yu bari maa ngi defal ba tey yàlla def Euh, ni am seen teraanga am seen lépp wax dëgg yàlla. comme xam-xam fi mu jugee mooy man jàng naa daara parce que nekkoon naa Louga foofu laa liyee nekkoon naa Louga sama sëriñ foofu ma jàngee ba yàlla def mu xëy mu wa mu mu lii mu yóbbaat ma indiwaat ma fi cees wante xam nga mbir dina la jëkk di di feeñu parce que bu may feeñu damaa toog sama néeg yaay néeg ñax la woon ma toog moo ko fekk ñun bu nu añee du nu reer bu nu nekkee du nu lii ni dëkk si néegi ñax sonn trop suñu am am dimu woon noonu waaw ni bu nu bu nu añee du nu du nu du nu lii parce que pour daa nga lijjën si 300 boo jëndee reer sax il faut problème problème la léegi bu ma toogee benn jour ma jàkkaalu rideau may seetaan benn rideau rideau kii lii parce que yàlla dama may loo xam ne damay jàkkaalu rideau di xam li xew bu ma jàkkaalee rideau bi ma ni sama yaay est-ce que ak am nga xam nga at bii di ñëw dinaa laal un million sama yaay ree moo ma yow yow yow balaa nga am trois cent booy añee wala boo reeree sax problème la nga ne di at bi di nga am un million ma ko wallaay loolu laa gis yàlla def bu ma commencé def ay ñaan benn ministre ñëw kooku ñëw nekkagul ministre ñëw mu jox ma un million kon un boobu laal naa ko te waxoon naa ko wax naa dinaa laal un million te un million et quelque la ma jox sax mu jox ma ko ma koy ñaan ma koy defal ba yàlla dafa fal ko ministre gannaaw yàlla ak yeneen bi teraanga bu ma am si ñoo ñaa ko amee parce que wax dëgg yàlla may na ma képp ku may ñaanal bu ma la seet samit ba wax di nga am lii di ko am incha allah si kattun yàlla. waa xam nga comme lu mu la ko waxee xam nga dafa am loo xam ne yàlla dama koo may parce que bari na tey ñoo xam ne tey ñu ngi yor alal bu bari ay milliards si kattun gannaaw yàlla ak yeneen si man la ñuy jaar parce que mbir ay du ma comme ni ma gisee man du ma fen tooguma si ay micro di wut alal parce que am naa alal ba pare am naa sama teraanga am naa sama lépp waaw man dem naa ba def ay hectares yoo xam ne defal naa si juma benn bi jumaa benn bi école benn bi euh, benn bi benn bi école benn bi fi ni fi ni daara fi ni jàngalee parce que projet boobu bu moom fan yi moom mu ngi si moom wante si bu àggee ëpp dina ëpp au milliard projet boobu bu àggee dina ëpp milliard wante ñi ñi nga xam ne moom laay ñaanal wax dëgg yàlla ñu ngi si ñoo ngi si ñu ngi si def lu lu mën trop ñu ngi ma si jàppale te parce que man dama ko def te ñaanal naa ko yàlla waxoon naa man maa ngi ñaan yàlla may ma sama teraanga ba may defal ay ay ay di jàppale ñu bari ba si defal jumaa ay école ak yow ñu fi ni nit ñi fajoo lépp ñaanal naa ko yàlla te yàlla defal na ma ko. waaw parce xam nga social moom dama koy def man du ma fenn. bu ñu duggee YouTube si si waa TFM ñëwoon na ñoo ma ko mën a seese seede ma duma fen xale boobu bu mu nekkee bu ñu bu ko liyee parce que xale bi dafa am kiris karja xam nu ko mën a waxee léegi ñu war ko kenn waru koo faje fii waaw kenn waru koo faje fii bitim réew lañ ko fare faje war a fajee à charge nag laa ko jël wax dëgg yàlla fay naa si presque boo boolee lépp parce que hôpital Timone lañ ko war a euh, yóbboon waroon ko woon yóbbu hôpital boo xoolee lépp war war naa ci dépassé lu ëpp 5 millions te loolu lépp bu lu ma si def yàlla dina ma ko joxaat parce que xale la te xool naa ko comme sama doom du sama doom nag bokk nu dara nag wante social la ma siy dox parce que man bu bu ma sañoo man loolu laa doon ñaan yàlla yàlla may ma teraanga may ma teraanga boo xam ne képp koo xamee yaa ngi jaaxale wala yaa ngi nekk sa ay problème fi mu mëntoo doon man ma dugal sama loxo bari na ñoo xam ne ñu bari dañu yaakaar ñu bari kër gi mën a dem ba fees nga yaakaar ñu bari dañ may seet fekk seen xaaj bi yëpp dañ wut ñu yóbbu seen kër wallaay azim parce que man social la moom laa bëgg man président Macky Sall tey bu demee ma jàpp ko wala Marème Faye Sall wala keneen wala mel ni Waly Seck boo gisee ma gën lay jàpp social bi ni def man képp koy def social rek dama dama lay jàpp waaw képp kuy def social dama lay jàpp waaw loolu dama ko terte dama koy terte parce que comme lu ma la ko waxee rek bu ma xoolee man dama seet man dafa am loo xam ne balaa maa dugg si nit gis nga est-ce que xam nga man ñëma naa àngu 500 million si nit ki ma wala si kàttanu yàlla dina dama lay ñaanal ba nga gis boo gisee nga nga li nga nga li nga ko sax ma nga jox ma 500 millions koy indi que balaa maa dugg si 500 millions yi day fekk ma seet ko ba xam ne lii mun naa nekk wala mun ta nekk fekk mun naa nekk ma wala kaar mun naa nekk bu fekk mun ta nekk. carrément ma mu mu ma wax la mun a nekk te balaa maa ñaana nit ki dama lay ñaana ba nga gis nga doo ko fay man noonu laa liggéey doo fay de dama lay ñaana ba nga gis nga doo ko fay. non non du ko du parce que xam nga la loolu xam nga xam nga kii wax bu ma la dama lay ba nga gis nga doo ko fay du ma xool kii yore milliard du ma xool ki yor million du xool ki yor dërëm koo xam da nga lay ñaana ba nga gis nga doo ko fay loolu kay jarul ragal yow ñëwal rek. parce que noonu laay liggéey wax dëgg yàlla parce que yàlla dama may ay jinne yoo xam ne ay jullit la wante du duma def lu bon du ma def lu bon du def lu araam luy jinne yi def luy jinne di parce que yenn yàlla Suleymaan yoroon na ay jinne kon képp ku ne képp ku ne am lu yàlla may loo xam ne mën na mayu ko keneen parce que yàlla mooy may man yàlla may na ma jinne yoo xam ne ay jullit la wax dëgg yàlla du def lu bon du ma digal lu bon du ma ma digal nit ki lu wax dafa parce que jinne yi dafa am ay façon façon boo jinne boo jëlee ay jinne yu yéefeer lu bon rek lan lay def loo man ay fay formation def lu bon ma ne jinne yu ma yono jinne yu jullit la wax dëgg yàlla te si kattoon yàlla gannaaw yàlla ak yenn bi képp ku ma si ñaanal si kattoon yàlla si mbir yooyu ma tuux la ay teetal si kattoon di nga gis lu ma la wax man du ma def lu bon man dëgg yàlla lu lu laay def daal wax dëgg yàlla am na lu la mën a yàlla may mil ay jinne yoo xam ne danga nga si def lu bon lii def nga def si lu baax nga bañ def si lu bon du ma def lu bon